أميمة برة بيضاء وعاتكة أروى أشقاء عبد الله فاغتيل لا إله إلا الله ونوارنا كل في المغرب سيد الله الغير ذاك بين المشرق دان يا للجن يا للبي سيد سيد لله أي خليفاتك إن جايدان خليفاتك إن جايدان خليفاتك إن جايدان خليفاتك إن جايدان خليفاتك إن جايدان وكبر له تدق من جدار ana soppay sëñ Babacar Si ay la تمسد سدل اللولا بغيني يو يا فين بين النصرين يا للجن يا للميسر زاد الله خطب الخازق خطب الخازق على سوق سيد على سوق سيد وولاي على سوق سيد لخي على سوق سيد ਕਰਦਾ ilaha illallah ana yusuf sëñ Babacar ana yusuf sëñ Babacar ana yusuf sëñ Babacar ana yusuf sëñ Babacar ako li de la Babacar ana jata de la ana yusuf sëñ Babacar ana yusuf sëñ Babacar Mustafa ana yusuf sëñ Babacar ana yusuf sëñ Babacar xale ya safu suy bay bayda xale ya xale ya xale ya soppo Seydi Mbaye Dar xale ya soppo Seydi Mbaye Dar xale ya soppo Seydi Mbaye Dar xale ya soppo Seydi Mbaye Dar xale ya soppo Seydi Mbaye Dar musuleen gis Sëriñ Babacar Dar ko ci waxal mu nga naan barke Sëriñ Babacar Si Mbaye la àndal Dar loxo e fa Muhammad Babacar Dar loxo ye o wa Seydi Babacar Dar loxo yi wa añ Babacar Dar Garda ci sopp sëñ Babacar daal ci sopp sëñ Babacar daal ala ya sopp Seydi Mbaye daal ala ya sopp Seydi Mbaye daal su leen fils sëñ Babacar daal côté Waxal ma nga naan barke sëriñ Babacar sëñ Mbaye ga ànd ak daal soppay sëñ Babacar daal soppay sëñ Babacar daal alhamdulillahi hada sheikhu rabbahu way xayrul wujudi lazi مولاه على الخلافة يو يو يو يو على الخلافة يو يو يو على الخلافة من در ميدان أنا طالب شيخ على الخلافة من در ميدان أنا طالب شيخ خلافة من دمي لا أنا طالب شيخي تتابعي خلافة من دمي لا أنا طالب شيخي خلافة أجمل دمي لا أنا طالب شيخي خلافة أيوة خليفة ما يبقنا لا يرجو في سجبابك أيوة كم ولو كل بالا يرجو في سجبابك kër yaa di xuut yow yaa di fawza jërëjëf sëñ Babacar sëñ Babacar kan la wooloo kan la boole jërëjëf sëñ Babacar ay waay moo di xuut yaa Baba aywa ay kan la wóoloo kan la boole jërëjëf sëñ Baba bàjjen kan la wóoloo kan la boole jërëjëf sëñ Baba kan xale waa mooyoo naa la jërëjëf sëñ Baba kan yaa faasu tubaaki xaqan qasakilaaw man nag damay woy damay damay